ça veut tout dire euh, euh, ci point bi nga xam ne moo di mbirum homosexualité mais boo xoolee dafa mel ni euh, ni ko yenn sénégalais yi comprendre ci bi Ousmane ko waxee bokkul ak moom fi mu waxee parce que tey moom boo xoolee man boog ci li ma jàngat ci discours bi mooy moom daf ni Jean-Luc Mélenchon loolu yéen seen seen société la loolu seen ay réalité la yéen da ngeen koy nangu ñun nag dina leen ko dina leen ko bàyyil mais ñun suñu société également da ngeen ñuy bàyyi ak li nga xam ne ñun moom la ñu gëm donc tey loolu est-ce que mën nañ ci jàpp wax que ni Ousmane Sonko kat tey dafa wax ni ñun dañu toléré wàllum borom ñaari tur fii la ci biir Sénégal ndax amul ak réeroo wala ay connotation politique yoo xam ni euh, sëñ Mansour euh, mën nga jàpp ko ne moom moo nekk ci ginnaaw euh, propos Ousmane Sonko wax tax ñu transformer ko pour la population. <laughs> a mhm. ma ciy déglu ki nga xamante ni. Mhm. démb ak barki démb bu Ousmane Sonko waxaan ba tudd ku dee sa yaay juraat. Mhm. au lieu que mu jëlee ko ci sens bi mu ko waxee. Mhm. da koy jaral mu dagg ko am nu mu ko monté ba bëgg manipuler wax bi. Mhm. pour gëmloo la ne Ousmane dafa tëb rek ne ku dee sa yaay juraat du koog laa ciy déglu. carrément <laughs> du itam dama ciy déglu ki nga xamante ni moo jëloon barki démb ak barki démb la discours de Ousmane Sonko bi mu ne woon gars yàq nañ sama der ba ne bu ma toogee ëllëg. dama fiy jëlee màggal ak gàmmu moom mu dagg lépp téye rek dama fiy jëlee màgg la gàmmu du du ki doon def manipulation boobu laa ciy déglu. moo tax may la maanaam ku sérieux laa ciy déglu bu ma waxee loolu. Mhm. mooy ku mel ni imam Babacar Sylla bi ma janool du li ma toog ak moom moo tax ma koy wax. Mhm. mais ñoom kuréel la goo xamante ni mën naa leen ci déglu bu ñu ciy wax. Mhm. xam nga Ousmane jàpp naa ne sax yegg na ci foo xamante ni ñoom amaana lu ci baree bari ñoom yegguñu ci. parce que moom dem na ba jàpp ne. mbirum homosexuel maanaam bu ñu amul sens dëgg menace lay doon ëllëg. ci àdduna. casus belli. waaw mais est-ce ki wax loolu. <laughs> mën na accepter mën na mën na moom d'accord ci ne loolu day am ci biir réew mi. mais est-ce que français bi foorul français bi maanaam maanaam <laughs> maanaam léegi bu maanaam maanaam wax bi lenn képp la woon. Uh-huh. te ma d'accord ceeg ñoom en décembre jikko yi. Uh-huh. maanaam baatu tolérance bi nga xamante ni Ousmane utilise na ko. muy moo bi. dama jàpp ne boobu bu amoon maanaam ki nga xam ne mën naa ko ci déglu. Uh-huh. mooy kii taxaw ne baat boobu waru ko woon a utiliser. oui xam nga lu tax maanaam manaam maanaam ñoom bu ñu koy wax mën leen déglu mhm. mooy Ousmane fii léegi yaa ngi koy méngaleeg li Macky Sall waxoon mhm. ak euh, président Amérique bi mu fi ñëwee Obama bëgg mhm. ko méngale ak lu Ousmane Sonko wax dafa fekk ne maanaam manipuler moo la moo la ñor parce que Ousmane nit ñi dañ koo xam avant muy falu xam ko ci jikko avant moo falu mais nag président Macky li taxoon ba mu ko waxee mu war a mën a jur lënt ci suñuy bopp dañ koo xamul woon avant muy falu président Macky Sénégal xamuñu ko woon avant muy falu est-ce que ànd sàmm jikko yi mën nañoo comparer président Macky Sall maanaam décision bi mu am. ci mhm. ànd saa ci ci ci mbirum góor jigéen avant muy falu. Mhm. mën nañ ko comparer ak bi Ousmane Sonko am ci góor jigéen avant muy falu. kon ki taxaw di jafe-jafe jéem a def comparaison boobu <laughs> yaakaar naa ne mu ngi manipuler loo xam ne du sotti. Mhm. parce que askan bi ku jàpp ne dañoo dof yow yaay ki dof. li tax ma la Ousmane dañ koo xam wala boog itam dafa am jikko avant. dama jàpp ne bi muy yenu combat bi di ko porté. Mhm. boobu la gënoon nekk dansé ci moom ci jamono bii Ousmane weesu na fu muy soxlaa jàppandalu góor ak góor jigéen xam nga tax loolu. Mhm. mooy ngóor jigéen amaana ku koy ku ciy dugg du nekk sa sago mais da ngay mhm. toll ci xat-xat ñu ñëw offrir la benn porte. pour nga jaar ci génn. Ousmane dama jàpp ne bañ koy barricade cité kër góor gi la gënoon a jege pour dugg ci ngóor jigéen. usman jàpp naa ne bi biñ koy baare pour mu ñàkk nekk candidat la gënoon a jege pour nekk ngóor jigéen mais étape yooyu yëpp bu ko weesoo ñëw ba yegg si au pouvoir. lan mooy intérêt bi. <laughs> c'est lan lay wër lan lay wër. lan lay wër pour mën a dem rejoindre ay góor jigéen. carrément kon dama jàpp ne kon wax bi li ci ëpp. Mhm. manipulation la. manipulation. maanaam moom li mu wax. Mhm. ay acte wala boog itam li mu wax ci biir discours am. Mhm. luy firndeel ne dafa dénoncé góor jigéen da koo dàq. mu mhm. ëpp fuuf yow mi jàpp ne dafa am tarxes bu mu def ci làmmiñam. ba utiliser mot boobu nga xamante ni mooy tolérance. ba tax nga war a mën a takk rajo yi di mbël mbëli di wax. boo xoolee ñëpp ci lañ taxaw moo boobu. moo boobu ci ci la ñu taxaw. te pourtant dégg nañ moo yu gën a fort yu mu wax yoo xamante ni day dénoncé góor jigéen maanaam day day day dàq ak góor jigéen ci Sénégal. te pourtant Ousmane bu taxawoon sax maanaam pour dëggal ko ci réew mi. Mhm. ngóor jigéen ci réew mi tegul ci loxo état pour mu dëggal ko déedéet tegul ci seen loxo askan wi ñoo koy réglé seen bopp est-ce que barki Demba Ndiaye Kaolack góor jigéen bi fa mhm. kenn ku ne maa ngi dem ci préfet pour mu jox mu autorisation ñu sulli ko. wala maa ngi dem ci gouverneur pour mu jox ma autorisation pour ñu sulli ko. déedéet mhm. askan ñoo jóg volontaire seen bopp dem defal seen bopp la ñu def. ba ñu paree taxaw assumer ko ci ña nga xamante ni taxaw nañu def ko. kon loolu tegul ci loxo état. dégg naa ko ci wax ba ne Ousmane dañ ko yóbbu VAR parce que moom moo fi taxawoon ne bu ma fal bu ñu faloo. Mhm. dinañ ko criminaliser. Mhm. fan lañ koy criminaliser palais. palais <laughs> assemblée. assemblée nationale ndax primature lañ koy criminaliser. <laughs> kon il fa que ñu ñu ñu bàyyi xel maanaam discours yi. Mhm. maanaam bañ a rek topp coow li. dafa am lu am solo coow des fois dina jib. nga war ci jël position yu am solo. mais ka ngay topp moo lay yàqal position ya ngay jël. Mhm. dafa am mbir bu jógee xoolal ñiy wax. lu mhm. Ousmane toogee bés rek. am na un jour maa ngi koy wax ci benn jotaay. Mhm. ma ne li ma métti mooy ñi ko teel a opposé dañuy yàq dañuy yàqal seen bopp. li tax mooy ëllëg Ousmane dina def lu jaraj mhm. ah, la rek. yàgg ngeen ci. Mhm. da ko yàgg contre. moo tax lu ci bëree bëri bul ko anticiper. surtout mbirum opposé. nit ki da nga ko fal 5 ans. bul yàkkamti opposé pour opposé déedéet bàyyil ba gis lu jara wax nga wax ko. boobaa boo ko waxee rek dina porter dina am sens ni dinañ ko déglu. mais dafa am ñoo xamante ni le fait que Ousmane yegg si au rek la doon njëkk a nekk seen coow muy ànd ak Diomaye dem pourtant ñooñu ngeen déggaat ci coow lii ba léegi. carrément. Hmm. Ousmane faluñu ko na xam ne na xam na xam ne ñun faluñu ko ñun jomaay lañ fal. Mm-hmm. te pourtant boo ko toppoon ba ci biir moom falul moom falul kenn. Mm-hmm. moom amaana deuxième tour la doon xaar moom miy wax loolu. Mm-hmm. nga mën ko xam ci ay nit. beneen bi boo bëggee yenn organisation yu ni mel nga ciy taxaw du ma personnaliser débat bi. surtout que ci mbirum diine. lillahi wa rasul ajal niveau bi tuuti fi nit ñi toll. bu dee Ousmane jàpp naa ne bu dee président Macky mënoon nga wàccee niveau bi ci côté diine parce que noo mënoon toll ci diine mën nga xeex ak moom ci wàllum diine mhm. mën nga défendre diine mhm. mais wax dëgg yàlla bu dee Ousmane nekkul jaayal ci diine a xam ak li ñu jot a xam ci mhm. boo xamante nii maanaam ku yeggul benn niveau bi mën nga ci komba ak moom sinon day doon wax boo xamante nii xam nga ne ki ngay waxal du la tontu parce talu la mais wér na la ne boo toogoon mu toog lii ngay wax dana wuute ak li ngay wax ci ginnaawam li may wax foofu mooy da ngay gis koo xam ne organisation ya mu yor. ci jotaay bii wala boog ci coow lii nga doo ko gisee mbooloo toog ci gannaawam muy wax mais fu mu woote woon conférence de presse moom kese ngay gis sañ naa ko tudd moom Matar Gueye Jamra gulet <laughs> à part coowal Wally sekk la woon. gulet ma gis Mame Matar Gueye bu woote conférence de presse. Mhm. mbooloo toog ci wetam muy wax. man toujours dama daan am problème que ma Matar kan ak kan la àndal. ñan ñoo nekk ci ONG Jamra mhm. défendre contre ma li muy li muy défendre. Mhm. mais na bàyyi xel. discours yi muy tenir ak itam mbirum vaar bi muy dugg ak terrain bi muy wàcc. Mhm. am na foo xamante ni doonul combat wam parce que am na foofu boo fa toppee. yow ci sa bopp la ñuy mujj di la xool di déglu sa discours. Mhm. di la bàyyi xel li ngay wax. pour mhm. pourtant toujours. dafa wootewu ci diine. imaam du ma bàyyi ma fen yàlla xam na ne néew ne fu mu waxee ba dugg ci alxuraan te yàqul aaye. xëcc lu xëccuwul wala mu gàttal lu gàttul. imam bu ma juumul démb. Hmm. déglu naa ko sëñ Modou Lo Ngaabu bi mu koy sant di ko gërëm. Hmm. nee na moo jiite sëñ Modou Ngaabu lu mu jiite. kii la wax euh, Touba. <laughs> sëñ moo jiite Safinatul Aman. Safinatul Aman dégluwaatal naka la ko waxee. Hmm. Safinatul Aman te bu ma juumul waxu ko benn yoon Safinatul Aman. ok te loolu lenn la. mais ba ci toujours bu muy wax. wa annal masajida la yoon wi sax gis naa aj na niveau bi dafa mel ni xam-xam baa ngi yokk tuuti yo sonn na koo leeral wa annal masajida lillah mais wa annal masajida loolu moom mosoon nekk ci làmmuñu moom Matar Gueye mhm. maa ngi doog a dégg gulet ci yoon bi mu mu mu prononcé ko normalement. Mhm. yooyu dafa nekk ay mbir yoo xamante ni. Mhm. du question que kiy taxaw pour jiite organisation yu ni mel. dañ naan dafa war a peeg lépp. mais au moins nag yi gën a terre à terre waruñ ko ci dégg ba nga xamante ni ki koy déglu day xam ne kii kat dafa taxaw ci pour organisation comme association yu ñuy tàmm yëpp. mais du. catégorie wala boog itam tolluwaayam ci diine moo tax mu yenn combat yu ni mel. Mhm. te yooyu li koy gën a feeñal. Mhm. mooy dugg ci combat yoo xamante ni amaana combat wu ñeneen la woon. Mhm. Ousmane Sonko dama jàpp ne. waxu fi lu garaaw. loo xamante ni war na mën a tax république bi yëngu wala boog itam ñuy woote ay conférence de presse ak i takki rajo. Ousmane dafa am lu mu waxoon am position bu mu jëloon. nañu xaar yegg si na au pouvoir. ba yegg ba am pouvoir bi mu soxla biir assemblée nationale. Mhm. ba xam lan la ñuy def. mais léegi boo takkee rajo yi mbel mbeli mbel mbeli mbel wax <laughs> après Ousmane Sonko ëllëg xëy wax ay député ne leen wat leen lii parce que nañ ko criminaliser lay wax. lan ngay wax après da ngay mujj kii naan waaw dama juumoon dama erreuroon kilifa dama jàpp ne yenn yi balaa ci dugg mhm. war na waajal boppam mhm. déglu ñi mu war a déglu waaye rek bañ topp rek manipulation bi ak ñi mhm. nga xamante ne amaana combat bi dañ la ci bëgg yóbbaale tey mais nekkul woon seen combat tey naka laa mën a comprendre ki nekkoon biir Benno Bokk Yaakaar démb bi ànd sax mu jikki yenoo combat bi mu teg si leen fi lu nekk ngóor jigéen lii ngóor jigéen lale ñoom ñoo ne woon ngóor jigéen soxlawul ñu koy criminaliser waaw mais léegi tey ñoo ñëw taxaw si wet naan la pousse leen wax la Ousmane moo ne woon dana ko criminaliser kii ko doon bañ démb moo taxaw tey di di ko défendre mhm. kon léegi yow lan nga war a am mhm. mooy nga xam ne kii manipulation moo ko indi mhm. man combat ba ma nekkoon démb combat principe la woon naa ci taxaw daf bu ma juumul bi ànd saa mu jëkk yi mos nañ fi woote ci propos yi Macron defoon ci ah. place de l'Obélisque première fois keroog ma dem ci organisation yu mel noonu Ousmane Sonko ñëw fa te pourtant moo ne invitation yi maa ngi ci doon déglu imam Dame Ndiaye invité woon nañ président Macky Sall. waaw invité diw invité diw invité diw. mais ñoom ñëpp. kenn ñëwul kenn ñëwul Ousmane moo bàyyi ay yitteem ñëw ci. da nga jàpp ne Ousmane léegi la mu nekkoon noonu yegg si na ci jamono bii loo xamante ni maanaam moo gën a nekk menace. que mm-hmm. jamono boobu. Mm-hmm. déedéet dama jàpp ne jamono bii la gën a am protection. Mm-hmm. pour war a mën a gën a jaamaarloo ak euh, góor jigéen yi waaye nag est ce que nag da xëy rek dafa am ay ku ma ko wax mu ne ma bon gars yi war a taxaw ci li ñu waxoon dañoo war a def li waxoon man te tombé keroog jour boobu boobu ñu ngi añ ñu ngi tim añ. Mhm. ma ne ko ndugg mi nga añee nii kañ lañ kañ nga ko nduggoon. Mhm. mu ne ma démb ma ne ko lu tax xëyoo rek añ. non non dañoo xëyoon defar ko xool li soble <laughs> euh, togg ko pour mu mën a sotti ma ne ko léegi pour pourquoi kon nga bëgg ne réew moom da ngay xëy jël ko gont defar ko. mënul nekk dafa am yu bëree bëri yoo xam ne procédure la laaj mhm. léegi nag yow mi nga xamante nii da da dafa am benn soxla boo ci am mais liiral procédure bi li ci jot a dox discours yi nga jot a dégg ndax wuute na ak li nga xamante ni mooy li mu tegoon démb ak barki démb wala déet jàpp naa ne ku taxaw rek te yàlla rek tax mhm. wax dëgg yàlla dégguñu ci Ousmane Sonko mhm. lu gën a garaaw wala boog itam lu ñu mën a lu ñu war a mën a gën a jàpp mhm. que la mu waxoon avant muy yegg si au pouvoir ci mbirum góor jigéen léegi nag boo ko nangulee baatu tolérance bi kenn njuumte la xayrun beneen bi daal li ma ci njëkk wax daal mooy li ma ci njëkkoon wax rek mhm. bu ko waxaloon boppam ci olof discours bi bu ko waxoon ci olof mhm. polémique bi mu jur nii yëpp du mhm. jur parce que manipulation bi ñu xam ne moom la ñu sentir euh, euh, na ko ñu jël ci benn point boo xam ne moom lañ ci gën a waxtaane euh, muy mbirum borom ñaari turi démb gis nañ seen nawle mën nañ ko wax di Mame Makhtar Gueye mën nañoo bokk ni seen mbir yi ngeen di xeex